mu mel ni dañ koy ànd ak waaye Régie rek daal di koy dooree ëttu yéenekaay bii di tribune mu mel ni moom daa xëy rek di addu daa di fay jàkkaarloog nataalu kii di président Macky Sall lut mu toog fa waaye di wër ne si rek ay conseil daal di doon mu mel ni moom jamono ji ak jaaxle rek ci la daal di toog bay wër koo xamante ne si dina ko mën a jàppale ci wàllum xalaat euh, ku ci mel ni Moustapha Niass mu mel ni moom lañ jàkkaarlool rek mu mel ni kuy waxtaan ak moom euh, ginnaaw loolu keneen ki nga xamante ne si gis nañ ko ci yéenekaay yi tamit muy diisoo ak président Macky Sall di Aminata Mbengue Ndiaye mu mel ni yéenekaay bi noonu ne rek la daal di xaatim eh, di xamle ni jamono ji président daal dinay soxla ay nit ñoo xamante ne si dinañ ko doon la ci ay xalaat lu jëm ci wàllum réew mi leneen li nga xamante ni ëttu yéenekaay bi daal dina koy xaatim ci xëtam bu njëkk rek daal ci addu jëmale ci eh, bii yoon nag ca ma rek la daal di jëmale di xam ne ni jamono ji moom mbir maa ngi gën a doy waar ci Sénégal niki démb rek daal dinañuy nemmeeku ay cas yu bari yu ci yokkuwaat lu tolloo ko téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn yoo xamante ne si ci ay cas yu bees la waaye daal dinañuy amaat benn nit boo xamante ne si jot na cee ñàkk bakkanam loolee sax daal dinay tax lim bi daal di egg ci jamono ji lu tolloog téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu mel ni loolee sax daal di nay tax ki nga xamante ne si mooy mus professeur euh, Souleymane Mboup daal di àddu jëmale ci mbir moomu rek euh, di xamle ne euh, jamono ñi bay boo ñu xam ne pic bi des na bu baax a baax fii nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal ni septembre jàpp octobre rek bay boo ñu séntu ne mbir mi dana dem ba egg foofu te bu boobaa du dem du dikk maanaam fam yam rek foofu lay daal di toll mu mel ni noonee rek la ko daal di xamle ci ëttu yéenekaay bi di Tribune ñu daal di fay gisaat leneen waaye ñu ñu àndaat ci beneen yéenekaay bi yoon nag l'observateur lay daal di doon moom itamit mu daal di desandi ca mbas moomu ba tey tamit di àddu mu mel ni daal na fay gis ay yenn ci ay ne si ñoom ñoo ngi a gis nag moom muy àddu mu mel ni moo di soxna tàkko moom nag lam xam di ab sasam moom daanaka euh, bu ko suñ borom dimbaliwutoon dëgg-dëgg rek day daal di ñàkkum xelam ndax te demoon na ba àndututoo ak sagom noonee rek la ko daal di xamle ci ëttu yéenekaay yi waaye keneen ki nga xamante si daal di na kàddu di Ibrahima Fall di ab médecin moom nag lam daal di xamle rek moom moo di jamonoy mbas mi demoon na ba yaakaar ni jàpp jàpp ba jàpp ni euh, bu démb doon tey rek dootu def du def métier bi nga xamante ne si moom moo di médecine ndax lu garaaw li nga xamante ne si doon na ko gis ci feebar bi euh, keneen ku àddu ci mbir moomu di beneen médecin moom tamit ñu di ko wax El Omar Samb moom El Hadji Omar Samb moom tamit daal dinay àddu ci mbir moomu di xamle ne euh, jamono ji moom it daa doy sëkk dafa mujjoon dem bay jooy mel ne xale bu ndaw rek ndax kaayu garaaw yi nga xamante ni doon na ko gis ci feebar bi mu mel ni noonee rek lañ daal di àddoo ci xëtu yéenekaay bu njëkk bi di jëmale ci wàllu mbas moomu ñu daal di ànd ak ba tey gis leneen li nga xamante ne si yéenekaay bi daal dina koy àddu mu mel ni accident bi ñu nemmeeku fële xamante ne si moom moo di yoof ndiki démb te ñaari tout tànk wala daal cay faatu ak beneen waay joo xamante ne si am marchand ambulant la woon mu mel ni daal dinañ fay gis ab kaddu ki nga xamante ne si moom moo di Abdou Diop mu mel ni moom moo yoroon loolu nga xamante ni moom moo di camion bi ba jéyee ji am lam àddu nag jëmale ci nee na jàmmalaay la doon dem daal di jaare foofu nga xamante ne si moom moo di yoof waaye ginnaaw ba rek la benn waaye daal di fës ci kanamam ba muy wër ay frein rek ndekete fekku fa dara ginnaaw noonu rek ci la daal di dal ci benn camion daal di koy diri mu daw ak moom lu di nay tax ni ñaari tuut tànk daal di cay ñàkk seen bakkan kenn ki di wuyoo ci turu bébé yande tolloon ci juróom-ñetti at ak euh, ki ñuy wax Mouhamed moom itamit amoon juróom amoon ñetti at mu mel ni yéenekaay bi noonee rek la ko daal di xamle ñu daal di faatu ca saase euh, leneen li nga xamante ne si gis nañ ko ci beneen yéenekaay di li daal di desandi ca mbir moomu di addu boole koog di xaatim ci xatam mu njëkk di xamle ne ginnaaw témoignage yi nga xamante si nemmeeku nañ ko démb ci accident ba ñu bari ña ko fekkee ak nañ ko doon nettalee di ñaawlu tamit méttit yi nga xamante ne si daal di nañ ko ni leen na tamit yéenekaay bi daal na koy xamle jëmale ci mbir moom mu ne ko ne ay frein ba nag la mbas mi daal di dugg si waat ci dëkk bi mu mel ni boobaa tey nag daal di demul rek ngir defaraat frein yooyee loolee sax daal di waral mu daal amal jéey ji nga xamante si daal di nañ koy nemmeeku fële foofu nga xamante ni si moom moo di yoofu ñu ànd ak yéen ci beneen yéenekaay bi yoon nag le témoin lay daal di doon moom itamit mu daal di addu ci meneen mbir jëmale ko eh, bi yoon ma ngay wax nag ci avocat yi nga xamante ni si dañoo nekk ci dëkk bi mu mel ni jamono ji ñoom itamit mbas mi daal dina leen di bu baax baax ni ginnaaw bi mu leen tëralee am na yeneen seen activité yoo xamante ni si daal dina koy mu mel ni audience yi ñu daan am daal dinay wàññeeku bu baax a baax waaye tamit lenn ci ay dossiers yu ñu daan traité mu mel ni gis nañ ni mu daal di manqué bu baax a baax noonee tamit lañ ko daal di xamle ci xëtu yéenekaay bii di la témoin ñu ànd ak yéen dem seeti beneen ëttu yéenikaay Les Échos lay doon moom it mu daal desandi ca meneen biir di ci àddu mu mel ni Abdoulaye Diouf ak ñi nga xamante ñoom ñoo gàlloo suñu wér gi yaram mu mel ni waa RMP di autorité de sécurité des marchés publics mu mel ni daal di nañuy tegaat beneen marché boo la boo xamante ne bu waroon a dem ci ay vaccin yu jëm ci ministre de l'élevage mu mel ni ginnaaw ba rek la waa ARMP daal di gis ne mbir moomu am na les waxut Farnum waaye dañ ko daal di xañ daal di koy dem joxaat beneen entreprise boo xamante ne si mi ngi woyoo ci euh, Superdel mu mel ni yéenekaay bi noonee rek la ko daal di xamle ak coow li ci nekk mu mel ni marché ba dafa jaarul ci yoon moo tax waa ARMP moom daal di dakkal marché boobu ngir rek ñu daal di saytuwaat ay mbiram. leneen li nga xamante ni yéenikaay bi àdduna jëmale ci meneen mbir mu mel ni eh, mbirum Abibatou Thiam moom i tamit daal dinay ni ba tey enquête boobu daal dinay woy ba tax sax yéenikaay bi di ñu xamal ni jamono ji eh, ki nga xamante ne si moom moo nekkoon Dame Amar ak gaayam yi mu àndaloon rek jëm ci wàllum drogue boobu mu mel ni yéenikaay bi daal dinay xam ne dañoo dugaloon benn recours ngir rek di demande liberté provisoire mu mel ni loolee rek dañ leen ko daal di xañ ndax li juge gis moom moo di ca lañ nekkoon dafa nekkutoon loo xamante ne si lu jaar yoon la kon mënuñoo nekk rek ba jëw ci jamono ji ñuy waar leen jox leneen li nga xamante ni daal dinañ koy gis ci ëttu yéenekaay bi moom itamit mu daal ci addu jëmale mu mel ne président Macky Sall moom itamit coow li nga xamante ne si amoon nañ ko ak waa imam de m mu mel ne coow loolu tamit waa M5 ñoom dellu ñu ci ginnaaw benn yoon waaye président Macky Sall moom daal dina ciy dellu ginnaaw loolee sax daal dina tax sax ñu daal di am euh, benn li nga xamante ne si moom moo di forum bu ñu war a am ci bés yaawa mu mel ni loolee yéenekaay bi daal dinay xam ne ni euh, fii ak altine ak jàmm rek dinañ ca war a addu jëmale ci mbir moomu ngir coow loolu daal di jeex ñu ànd ànd ak yéen wëri beneen yéenekaay bi yoon Vox Pop lay daal doon mu def ay enquête ak ay takk yu wér daal koy jëmale ci fi nga xamante si moom moo di lenn ci Sénégal nga xamante ni ay pauvre dafee bi lam moo di am na luy tolloog 37 virgule 8 pour cent yoo xamante néew di doole leen fii ci réewum Sénégal mu mel ni la ko gën a yokk sax daal dinay tax moom mooy Covid 19 bi ni ginnaaw rapport yi nga xamante def nañ ko diggante 2018 jàpp 2019 rek loolee la daal gis am na ci ñoo xamante si ay gobar jaasi maanaam loolu la muy fund moom moo di buñ toggee ab añ rek ak reer lañ cay daal di tibb mu mel ni noonu rek la ko daal di xamlee ci xëtu yéenekaay boobu ñu ànd ak yéen ba tey tamit laas lay daal di doon moom it mu daal di addu ci meneen mbir moo xamante ni si daal dina ko ci jëmale euh, bi yoon nag lam daal di xamle rek moom moo di jamono ji daal dina jot sëkk nag ñu daal di wax ak mbir mi fi nga xamante ni moom moom la toll ci réewum Sénégal la tax nag mu daal di xamle ne bu ñu moytuwul lii nga xamante ni moom moo di pomme de terre ak soble ak diwlin dina manqué lool daanee rek la ko daal di xamle ci yetu yéenekaay bi waaye di ginnaaw loolu Samba Ndiobène Ka mi nga xamante ni moom moo yor lu jëm ci wàllum jur gi moom daal di lay xam ne Ndakaaru Njaay am na luy tolloog 151 yoo xamante ni ci ay mouton la waaye tamit daal di nay xam ne ni jamono ji am na luy tolloog juróom benn junni wala juróomi junni ak juróom benn yoo xamante ni jàpp nañ ni dinañ wàcc ci réew mi mu mel ni moom daal di nay gis ni xar rek dana daal di nekk loo xamante ni lu jàppandi la ci tabaski gi ñu daal di seetiwaat beneen ëttu yéenekaay critique lay daal di doon ñu daal di fay gisee moom nag mu xëy di addu ak di calculer ak a wàññi ki moom moo di président Macky Sall ginnaaw bi mu fi defee benn mandat ba toogaat ci ñaareel bi mandat moom moo ko dese ci nguurug Sénégal moom moo dese état bu Sénégal ci nguur gi mu mel ni noonee rek la ko daal di xaatimee ci xatam bu njëkk waaye tamit di ko xamal ne bu mu fàtte mukk daal xool koo xamante si dina ko fi wóotu bi fi bàyyeekoo ndax troisième mandat moom jërul mu koy xalaat benn yoon fii nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal ñu daal di ci beneen beneen yéenekaay le quotidien moom it lay daal mu addu ci beneen mbir bi yoon nag coowal suuf moom ca la daal mu mel ni ca lañ mu mel ni yéenekaay bi na ci leneen mbir lum addu jëmale ko M5 moomu feek altine rek jàpp na ne ak leerande daal dina ci am daal di jëmale ci mbir moomu ñu jeexalee ko ak yéenekaay bi di su a moom tamit ci coowal suuf la des mu mel ni cas bi bii yoon te Aïda Sow la daal di desen rek lam xamle mooy suuf soo xamante ne si daf koy xëcc xëccoo ak kii nga xamante ni si moom moo di Birame Sow mu mel ni yéenekaay bi lam xam ne rek ay dañoo moom nee na jàpp na ne suuf soosu doomam moom moo ko moom taqewut ak moom benn yoon lu jëm ci wàllum politique ndax citoyen yi la am na droit am suuf ci réew mi mu mel ni Birame Sow moom lam gis moom it daal dina jàpp ne suuf soosu moom moo ko moom moom nee na benn mairie jox ko ko moom moo ko jëndal boppam ci état bu senegal mu mel ni saa suñu xëyee rek coowul suuf di gën a lëmbee ci réewum Sénégal ba tax na ñoom ci seen biir kenn ku nekk di tamante ak ndam bu fii ci réewum Sénégal mu mel ni soxna Fatou loolu rek la yéenekaay yi daal di xëyee tey jii yemook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet atum 2020